si moone. bés bu dellu si moone. timan timan. bés bu dellu si moone. awa. bés bu dellu si moone. timan timan. yàlla naa yàgga lekk ceeb. amiin waay yàlla naa yàgga lekk ceeb. dama koy aaye. yàlla naa yàgga lekk ceeb tuuta. yàlla naa yàgga lekk ceeb. merci. am na chocolat. يقتضي أن شفلا توجد يقتضي أن شفلا ajë lépp leen ko ku ne koktal ba koktal yi maa ngi gërëm ñëpp si di ñëpp di gërëm bu baax ñi xam ne nag mooy Sunu Média Dakar Live Univers Info ñi déclaré wu ak ñi déclaré wu ñëpp waa Sunu Média Univers Info ñoom ñëpp ñu fi teew mbay lambar lambar ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant gis nañ seen teewaay fii ngeen dundoo ko ñun yàlla yàlla defal jàmm loo leen ñu leen di fay. tey ñu la ñu lay souhaité happy birthday to you. waaw gannaaw bi ñu gis mbooloo bu takk bu nga xamante ne wuy si la tey lan ngay wax ñi nga xam ne ñoom ñoo teew si si. anniversaire bi le 12 mars la waaye dañ koo xëcc def ko la 10 mars parce que lundi bi day fekk mu passé. te lu passé dima dima lundi day fekk mu passé dimanche le 12 mars la ma bokk ko ki nga xam ne mooy Ndem Sall ci Thione Seck ñu ne nañ jël ajjuma ji def ko ñaan boole ko ci ñaanal la ko ndax dimanche bii personnel bi du fi nekk ñu bëri duñ liggéey te dañu bëggoon ñu médiatiser ko ci biir émission Kouthia Show ndax moo sax nañ ñi boo ñu profiter pour def ko ajjuma pour ñëpp ma nekk xam ne ñoo la nekkal yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg tamit personnel bi nga xam ne mooy euh, administration Groupe <laughs> nga doon wàcceel moom moo di euh, Thione Seck ñu koy ñaane yàlla suñu borom yërëm ko ñu ko na xam waaw ay ñu ko waaw ñu bëggoon a xam tey seen seen relation naka la bi muy dund ba tax tey nga di ko wàccee kaamil ci bés. ah dañ koy def parce que xam nga coom dafa nekk koo xam ne ku baax la bi muy def projet CEDEAO bii ah bi mu koy def ah Ba dagg naa ko. madame Ba dagg naa ko mu ngi noonu premier part bi mu ngi noonu premier maa ngi koy jox nii waa internet waaw premier part bi site bi ñoo ko moom waa site bi yéen yéen a ko moom yéen ñëpp yéen ñëpp a ko moom yéen ñëpp a ko moom waa peut site bi bi seen laay jox nañ ko kilifa bi ak site internet bi waa kay très bien kon léegi ñu ñu dem ci tontu yi yii na dem fële wàll gi ni ñu ñu xaar yi gën a ko ci kaw. ñu gis tey sa bés bi nga wàcceel ci kaamil Papa Thione Seck nga ñaan yàlla ci borom yërëm nga ko xam lan moo ko waaw parce que Thione Seck dafa nekk nit ku baax. Euh, deux mille vingt et un astafurlah deux mille vingt dafa nekkoon ci projet bi nga xam ne moom mooy album Sadayaaw boobu mu woo ma ci mu tombé douze mars may ñëw di xool ban fan laa a duggee ba mu ne fii baax na maanaam mu ne ma déglu mu ne ma dinaa ko envoyé ci clé nga gën maa ngi dem kër ndax tey la sama anniversaire mu ne ma xanaa ko bëgg a war a da bëgg ma compal la ma ne ko déedéet tey laa judd génn sama carte jox ko mu daal may code na ma lii moo tax ma ak yow ñu nuróo ci ko maa ngi soog a comprendre yow ni nga mel man noonu laa mel kon yow bés bi daal wax dëgg yàlla yàlla nañu yàlla def ñu koy féete à chaque fois kon tey bu yàlla defee tey sama anniversaire jege moom fekk ko fi wax jooju déclenché sama xel dama ko ci delloo njukkal jox ko gisoo fi jaaga gisoo fi waali gisoo fi kenn koo xam ne euh, dañ leen a invité parce que li ñuy bañ mun yaakaar ne dañ koy def pour ut dara wala dañ koy def pour jéem a yëkkatiku wala dañ koy def pour dara dañoo lancé message bi rek ne yéene na leen ñoom ñu fekk ko te def nañ ci suñu ñaan ndax sang bi toog bi Ibou Seyni Laay defe naa ne yu ñàkk fayda tax koo jóg di ko tax a jóg moom mooy ñëw seedeel taxaw taxawaay kilifa diine yi ndax moom la ñuy ubbee toujours saa yu commencé kilifa diine lañu ubbi tey boo fi xoolee jàngu bi yónnee na fi ay ñoo xam ne ñu leen représenté monseigneur Théodore Adrien Sarr cardinal Théodore Adrien Sarr monseigneur Benjamin Ndiaye abbé Jean ñoom ñëpp am ñu représenté ci mbooloo bi yoo xam ne teew nañ fi ëttu diine yi ñëw nañ sëñ Abo Mbacke xarit sëñ Fallou Mbacke tey ñëpp a ñëw wax dëgg yàlla kontaan nañu te lii lañu bëgg li nga xamante ni jot nga koo wax ci Thione Seck fasaale nañ ko parce que Youssou Ndour may bërëb bi Youssou Ndour ko moom moo ñu ci jox autorisation jox ñu ci doomam kontaan ci joo yónnee délégation kon tey li ñuy def nii buñ ko waxee rek c'est parce que Youssou ànd na ci Youssou mooy Thione Thione mooy Youssou te ñoom ñaar dafa nekk ay éléments yoo xam ne bu may soog a commencé lépp lu mës a def rek di tool Youssou Ndour ak Thione Seck Thione da ko gisee lu positif Youssou gisee ko lu positif kon tey wax dëgg yàlla su ma koy féetee ci biir plateau bi nga xam ne mooy TFM TFM bu ñu ko waxee alalu Youssou Ndour Youssou Ndour ko moom kon am naa ci autorisation am naa ci ndigal fan yi passé dañu dégg nga wax benn kàddu bu am solo nga wax ni jamono ji nga xamante ni da benn politicien bi nga xamante yëkkati na téléphone am woo la gis ki nga xam ne moom di Ousmane Sonko yëkkati téléphone daal di lay laaj la ci nga nekk est-ce nga ñoo dikkaat ak ci loolu laataa ñu mais loolu waxoon ah. loolu xam ne amicale la je parle pas dans le cadre politique parce que yoruma position politique Kouthia Show mooy émission bi nga xam ne wax dëgg yàlla dafa équilibre émission la boo xam ne wax dëgg yàlla boo ko xoolee doo ne Kouthia dafa far ci opposition wala far ci gouvernement bi damay topp actualité di ko coloré en en humour mais ay relation personnelle euh, may wax ne moom ba mu koy def élection amul woon may feebar 2019 <laughs> corona bi 2019 la non ah 2019 2020 boobu élection na def nañu def ba pare daf ko def xëy na mais nekkul loo xam ne Euh, dama ko koy politiquer wala pour jàppale ko wala affection boo xam ne dama ko ci jëmale ci moom pour seetlu ko ci. la mu def waaw mais dama joxe sama xalaat rek parce que euh, muy moom euh, maam booy jaxa woo na ma fi Ousmane Sonko woo na ma fi Amadou Ba woo na ma fi mais dama ne ñooñu ñooy autorités yi nga xam ne yëkkati nañ seen téléphone woo ma di ma remercier ndax Ousmane Sonko mooy kii ko njëkk def mais bi mu ko defee ñeneen ñi def nañ ko. donc su ma koy lim damay mais du ma ne opposition rek ñoo ma ki ko waroon def te def ko mooy ministre de la santé ci période boobu def parce que moom moo ko waroon yor te def ko te euh, euh, euh, teewul mais am na ñu nekk ci ñoom def nañ ko Amadou Ba def na ko Mame Boye Diao yëkkati na téléphone woo ma soxlam woo ma kon ñooñu tey bu ñu ko defee c'est parce que on a des relations yoo xam ne dafa amicales Mame Boye Diao c'est c'est c'est l'ami de mon grand frère Alé Sine nekkoon directeur des domaines tey mu remplacé koon ba tey si ami dégg barke démb rek émission fii gërëm na ko ci waa Sénégal yëpp ne magu Kouthia boobu di euh, Alé Sine nit ku humble la nit ku baax la kon tey sama relation politicien yi Madické Niang gisoo ko fi am naa moom relation am naa relation ak waa APR est-ce que xam nga benn affaire boo xam ne tey mosoo ko xam wax la ko tey exclusivité premier congrès bi ñuy toog di nas APR koy def ca Ravin man la ak Macky Sall waaw waaw man waaw man bokk naa ci animateur yi yoon taxaw animé ko jour boobu ca Ravin Abdou Mbow mu ngay bàyyi ma du ma bàyyi ma fen Macky Sall mu ngi may seetaan Ravin nañ ko defee pare Ravin dem benn boîte de nuit bu jàkkaarloo fi ñu mayee deret te duñ koy joué salsaaxo mu boîte de nuit tudd ci ah loolu du Kilimanjaro benn boîte de nuit bu jàkkaarloo fi ñu mayee en face Avenue Cheikh Anta Diop foofu ñaari ñaari ñaari boîte yi la Macky Sall njëkk a defee ay conférence ay kiyam congrès genre congrès ay waxtaan bu APR kon tey bañ may woo bo man maa premiere premier comédien boo xam ne soirée yooyu maa ko kon acca Macky Sall nan la mën a jàppee sama ñëwaat TFM non da nga bëgg loo yokk rek da nga waxtaan yow tamit waaye da nga def tamit ajaay tamit yow question yoo xam ne yow non non non xam naa dañu may benn deux minutes rek gaaw bi sax ñooñu demee léegi léegi Kouta dañuy ñëw si Sénégal ñoo bëgg ma ñëw Sénégal léegi léegi da nga def lu am solo te dañ ko dañ ko cof rek waxuñ ko mooy ci anniversaire bi mu tombeel yaak suñu papa coon dem si yàlla benn bés bi ngeen juddu nga wàcceel ko kaamil waaye defoo lépp biir wi da nga ko nëbb da ko def ci suba teel euh, lu waral nga wàcceel kaamil boobu noonu jagleel ko papa coon Seck waaw parce que dama gis ne ñoo bokk date anniversaire mm. toon nekk koo xam ne billahi wallahi taala xajoon na fi ba tey billahi coon xajoon na ba tey kon loolu la jël coon xajoon na fi ba tey coon mm-hmm. dafa waroon dund koo xam ne wax dëgg yàlla ku direct nit moo taxit wax dëgg yàlla soxlul woo doom soxlu woo kenn est-ce que dama gis Wally gisoo fi jaaga gisoo fi vraiment amul kenn ku taxaw tey man maa représenté loolu defuñu ko pour médiatiser ko war a pour am anniversaire mu nekk nit ku baax nit ku nga bokkal anniversaire wax dëgg yàlla du du parce que maa yow bokkuñu bokkuñu ko keneen laa ko bokkal kon bésal bu am solo moo taxit tey ma yéene ko ci defal mais du tey mooy bésal dimanche la waaye parce que àjjuma la tombel te mu topp sama euh, fin émission moo tax mën a xaale ko ci yéene ko ci yàlla ko yàlla dafa baax ku baax koo xam ne wax dëgg yàlla dafa baax ku baax gis nga coon ak Youssou nit ñi yàlla baaxal nañu dañoo bokk jikko Youssou du tontu du faale bañ na ko benn yoon la mës tontu porte presse ndaa <laughs> ko mës dégg mu way tontu porte presse bàyyil maanaam boo amee loo xam ne dala naqari nga dem ci presse bi di ko fa wax moom dafay ne noppi Thione Seck tamit nekk koo xam ne dañ ko waxal yëpp si mu mujjante dundam mu mosoo dégg mu taxaw defante wala ñu ne coon yóbbu nañu police war a porter plainte de police moom kenn ñuy tooñ di ko waaye mosoo ko dégg ci mel noonu yal na ko yàlla xare ci àjjana yi gën a kawe si sa wàllu liggéey li ngay def sénégalais yi bëri duñ ci bàyyi xel même bu tension politique amee Kouthia day wax bu waxee jàmm day amaat inspiration boobu noonu nan la ko Kouthia amee waaw mooy ñoom Serigne Thiam yi def nii rek invité ay nit ñu daal day wax bu affaire bi tàngee ñun ñu daal leen déglu ba pare la lendemain ñu xorom ko suukar ko moom ñu ne suba réew mi tàkk ñun le soir ñu yaa ko jël sotti ci ndox xoromal ko suukar ko gars yi kafe ko du arrangé politicien bi parce que daan ku caa yàqal na ma parce que ñu dañ koy jël café ko ba ñëpp jàppee na ah lii kon amul te mënoon naa taal réew ñun loolu mooy suñ suñu rôle comédien dafa war a nekk koo xam ne bu réew bi naree tàkk koy fay. waaw waaw sama anniversaire a lancer message sama anniversaire bi laay lancer message yal na ko yàlla déglu ñëpp dégg ko jàmm ñaanal ci li nga xam ne moom mooy ci anniversaire bi anniversaire bi daal yàlla ci yàlla na jàmm anniversaire bi daal ko yow waaw lu waaw moo tax ñu jël ko nii. sëriñ yéen ñaa yéen a dëkk. fii doon kuy xaar ma jógee fii fii sama kër la mu suis presque à l'âge la retraite yàgg na man au contraire damay xëcc nit indi ko fii formé ko pour mu am relève bi. loolu mooy sama rôle waaye nekkatuma koo xam ne damay gedd di guddee fii sama kër la. dama bëggoon noppaliku rek samay feem la dama bëggoon noppaliku parce que man damay liggéey man médiateur laa mënumaa def man fan laay defati man fii laa am fii mooy sama kër fii dafa nekk sama deret tey TFM tey bu doon jëmm la tey xool balaa war a xëtër ba war a dara laaj lu ndaw waaw waaw ah, tontu la ñu. te ñëpp ñu jot ci xibaar bi ñu bëri fii ci TFM yaa leen indi am na ay ustaas yoo xam ne sax yàlla leen indi bi TFM. ah ñu bëri ñu ñoom comme ko waaw mais parce que booy def da te yàlla tax. sa relation ak ustaas Modou Fall. jàmm rek Modou Fall sama nit la ku baax la. est-ce que xam nga sama xarit la parce que Modou ba ñuy wax teg téléphone ma nga ci Italie Modou Fall moom ci boppam. bu wéetee dina xam ndax Kouthia nit a war a dundam ndax ba muy ñëw ma koy muy def ay yu neex ma ne ko mm. yow sa place du ci ay statut mm. sa place ci télé la mm. woo njaga nduur mii mu baax mii ne ko njaga kii ba duñu koo bàyyi mu dem sama kanam am sax xorom la ba ñu lijjanti ndax dafa war a paas di ñëw di dem war a raw yàlla tey indi ko fi ba mu dugg si téléphone Modou Fall sama xarit la du sama noon sama xarit la du sama noon Modou Fall sama kanam ma ko caani moo doole mënu ma ragalu ma ko waaw mais moom ci boppam xam na fa ma jaar ak moom ñëwam fii TFM moom bu wóor ah, toogee wax rek te yàlla tax xam na ne caab bokk na ci à quatre vingt dix huit virgule cinq pour cent dugub TFM man mais sénégalais yi bari jàppoon ne euh, mbay da nga koy xëcc pour saraxe ko ndax instant boobu amoon na buzz mais naan ni ni mel amul non mbay mbay mbay mbay mbay nante la mbay nante la mbay fii këram la mbay du ma ko topp ci dara parce que dafa baax xolam dafa rafet bi mu ñëwee tamit du ko saraxe pourquoi ma koy saraxe man jeexal naa ba pare ma def moom mooy former ak encadrer xale yi mhm. mbay dafa nekk ci yoonam yàlla ko yàlla teg ci yoonu jàmm dem na ba mu xam kenn xamul santam mbay ku caada yi wax ak gilawaali bu mu munti def sama tur la ci man li ma war a def kay moom mooy sàmm ko rek bu bañ a def loo xam ne parce que da ngay dégg ku ñu ne mbay am ñoo xam ne Kouthia ba la ñu mujj dégg ne Kouthia def gilaawaali fekk mbay def gilaawaali loolu kay laa koy yeddee rek di ko encadré waaye mu def loo xam ne macha allah yàlla ko yàlla dafa jàmm isi loolu la na ci dox tali yàlla